الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه وصحبه الأبرار ورضي الله عن شيخنا بالإحساق وعن جميع مشايخنا وعن أولياء الله في السالفين والخالفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلد مبكي طالبي ñu leen di nuyu di leen ziara tey fas yéene àndaate yéen ci suñu darsu bi nga xam ne mooy bibliothèque de la fayda àndi ko yéen suñu seen bi nga xam ne mooy seenu Ibrahimiya TV ñu ngi ci nujumul hudaa mbokk mi ba tey gis nañ darsu bi weesu ñu ngi woon ci yonentu yàlla Ibrahim ak alxalil maqaamam ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxabib gis lañ ci gis ci ay wuute ak i ngëneele gëneele yoo xam ne yàlla def na ko jox ko soppi bii di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu continuer war dugg ci beneen yonentu comme nañ leen ko joxe woon rendez-vous bi ñu leen joxoon ne tarsu bi di ñëw dinañ dugg ci ngëneelu ki nga xam ne moo am ci diggante yonentu bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak di leen ci yàlla Moussa al Kalim kon tey ñu ngi ci tomb bi génne nañ ci xalil ñu dugg ci kalim mu ne wa amal kalimu faqad jaa lil miqaati wa muhammadul habib subhaana alladi asra bi abdihi wa munajaatul kalimi inda tuur wa kallama allahu dégg nga inda tuur wa munajaatul habib fawqa arsh fawqal arshi wa fawqal fawqi mbokk mi wax ju for mu ne su fekkee ni yoon ci yàlla Moussa la miñ daan wooye kalim ndax daf daan wax ak yàlla di ko jam ay baat muy tontu di sànnianteeg moom ay kàddu ba ñu ne ko Moussa kalim fa jaalil miiqaati ñëw na ca miiqama wala fa xew xew fa yàlla wax na ci alquran ne ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فقال رب أرني أنظر إليك بلا جق أو قوجا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل موم نيونو تي ميق مو ينت موسى كون خمن ني تخونا جوب بروم لا دون ساك بروم بور بروم لا وور مو ملني لا دون ينت ابراهيم waaye xola ngëneel gi yàlla defal dégg nga jaamam ca loola subhaana alladi asra bi abdihi laylan yàlla jox xabib mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah màgg ak tedd nga ñeel nga xam ne tudd na mag sell ak borom nga xam ne moom moo rañaane jaamam guddi kon kële moo jogoon sàkk bëgg jublu kii nag moom dañ ko namm dégg nga sàkku ko jublu ko dégg nga oo ko mu wuyu ji yàlla boromam ila xayri dalika ak lu dul yooyu waaye yoon ci yàlla Muusa ba tey mu ne munaajatul kalim yonent yàlla Moussa di dilante ba maam diyante ba mu doon ak yàlla wax gam doon wax ak yàlla moom yonent yàlla Moussa ca mi xama loolu ay nda tuur ca yàlla mooy li mu wax ne dégg nga yow yàlla fexeel ma wan ma sa bopp ma gis yàlla wan ma sa bopp ma rabbi arini anzur ilayk kon wax jëm na wax moom mu ne ca tuuru ca tuuru Sinaa nag fa munajaatul Habib fawqal arsh moom mais bay déante borom mu ko def ca kaw arsh wala sax mu ne fawqal fawq ak ca kaw lay kaw bu ñëwee ba ne fii mooy la kaw ca kaw loolu bu kaw ne rek am na lu ko gën moo tax mu wala sax ca kawi kaw wala wax ak borom kii ci suuf la doon taxawoon di wax këleen yéeg aj ca kaw di wax ak borom kii moo demal boppam fam dem. ki dañ ko jël ci yóbbu ko kon foofu mbokk mi ngeneel am na kon gisati ñu ngeneel bi dox ci diggante yonent yàlla Moussa al Kalim ak yonent yàlla ba tey ngeneel am na diggante yonent yàlla Moussa al Kalim ak yonent yàlla Mouhamad Habib xam nga nee na la munaajatul kalim munaajatul kalim inda tuur wa munaajatul Habib fawqa al arshi wa fawqa al fil wa kallama allahu Moussa taklima waxyan minhu ilayhi تعالى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم مشافهة عيانا googu mbokk mi itam gu foor la nee na yonent yàlla Muusa eh, yàlla dafa wax moom ci wax yu gu tukkee fa moom jëm ci yonent yàlla Muusa mooy wax joo xam ne borom jëmmam teewut daf ko wàccee niki dégg daf ko wàccee niki hadiisu quds wala daf ko wàccee niki alquran rek waaye lu ci mën a nekk dikkee na ko comme waxyu waaye duhul ne yonent yàlla Moussa yàlla dafa xaw moom mushafatan ayaan waaye mu ne su fekkee ne Habib la sallallahu alayhi wa sallam moom day ah kallama allahu muhammadan mushafatan yàlla dafa ko yonent bi ci mushafatan ayaanan gite ŋaas comme ni ko waxee suratu nañ gite ngaas yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam ne rek leeral ko rek dafa doy ma ne ci ko xam ne yëf na ci yow wala bëgg ngaa inkaar yàlla wax ne war nañ ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma gawa yaa ngi doon laam-laame yëf yi naan ah waxi naxa saxa nag lay wax ay gis yàlla aras dem aras dem ci kaw ci koo xam ne ah yàlla ne la ma wax dëgg la ma bala saa bi ko maa ko waat wa maa yantiqu ani l-hawaa itam nag ma yantiqu ani l-hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa ginnaaw bu yàlla dëggalee ne na nga ko waxee noonu la demee parce que alamu shadiidul quwaa waaye li ma ca li ma soxla foofu mooy su ma danna fata dalla su ma danna fata dalla fa kaana qaaba قوتيني أو أدنى يغضي على بولاني مشافهة عيانا لولي قلمان نكون نمو لكو يفري موسى مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى كن ينتي على موسى عليه السلام مون بومي ديالك بروم تي تور سينا وحيا الله ينتي على موسى مون yaa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko defal musaafahatan ayaanan ci lu duhut benn xijaab gite ngaas yàlla soo ko jox lam ko jox bi loolu amee rek ci la ko soo ko jox lam ko jox wa awxaa ilaa abdihi ma awxaa mbokk mi loolu du beneen ngëneel boo xam ne yonent bi alxabib am na ko ci kaw yonent yàlla wa xaka alkalaamu alladi takallama bi Muusa bi qawli wa maa tilka bi yamiinika yaa Muusa al aaya mu ne yàlla nettali wax ja nga xam ne yonent yàlla Muusa wax na ko ca Tuuba te mii xama waxtaan wañu waxtaan yàlla nettali ko mooy ba mu ne lan moo nekk sa loxo bi yow Muusa yonent yàlla Muusa tontu sama yet wi ci laay dàq sama gàtt gi ci laay ci laay dëgërloo ci lay nàngam ci laay nàngam وأنت يا الله محمد صلى الله عليه وسلم من وقت مناجاة الحبيب من نبو يا الله لم دهنتك سوف مبين أنت يا الله صلى الله عليه وسلم فأبهما من نبوك بقوله تواخ جمنا فأوحى إلى عبده ما أوحى لو رجل يا الله من برج بسيطة بخير كل دفنا من كل يوم من من يوم من كل يوم ما كيوم بسيطة عشان بخير دفنا رجل يا الله وحي جامبلام كوحي yàlla jox jaam balam ko jox rek mu jaa nekul fa naa mané ko li mu ne wala mané ko li mu ne loolu beneen gëneel la lo xamné yàlla magal na fi yonent bi sallallahu alaihi wasallam muhammad ci kaw yoon ci yàlla musa alayhi salam al alkalim fa awha ila abdihi ma awha ba waxu mufassir bi alim bi nga xam moy fakhruddin razi dëkkoon ca Taxaraan bi loolu Madinatu Ray mooy Taxaraan léegi ca onzième siècle yëpp dafay tekki guddug loxoom ci gëstu xam-xam ak man ko xam ne mu ne qaala faxru razi faxru razi nee na naa la mooy faxru din arazi inda tafsiri qawlihi taala faxru din wax na ci moom mi firi wax yàlla jëm ne tilka rusul faddalna wax ci alquraan yi ñun tuye ñu gën a la ñenn ci kaw ñu ko def ndax yàlla ji rek teg tëre na nag gën lante bu amee moom faw rek dina am ku ca gën koo xam ne mooy gën ñëpp kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ñu koy indee ci ay dalil Faxru diin nee na wax na wax ji la indi mooy nas bi la indi texte bi la indi ba muy firi wax yàlla jëm ne tilka rusul fadalna baadahum ala baad mu yaxal moom faxlu din lii la wax daf ne ijtamaat il ummatu ala ann baad al ambiya afdalu min baad mu ne xeet wi xeet yonent bi saasam dëppoo nañ ci ne yonent yi ñoomu neen dañoo gënante dafa am ñu gën ñi ca des am dafa am ñenn ñoom ñoo xam ne ñoo gën ñenn ñi dégg nga wa ala anna muhammadan waaye naka muhammad sallallahu alayhi wa sallam afdalu min al kulli moo gën ñëpp faxru raasi mu ne lii moom xeet bi ñoom dajee nañ ci dëppoo ne ñi nga xam ne ki nga xam ne mu yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci yonentu yëpp comme ni nga xam ne yonentu yi dañoo gënante wa yadullu wa yadullu alayhi wujuhun mun li koy ay cëlmaay la ay mbir mooy tegtale lool ay mbir mooy tegtale ni yonent dañoo gënante waaye ka ci gën mooy yonent yàlla muhammad alhabib sallallahu alayhi wa sallam qawlu wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil mu ne yàlla wax ci alquran ne yónni hum nduru nga nekk yërmaan na ñeel mboolem àdduna falamma kaana rahmatan lil li kulli alamin lazima an yakuna afdalu min al alamin lii la faxruddin razi wax moo xam ji jeex na daf ne yonent bi salaa sallam moo gën yonent yi mu ne lu tax luy ay cërmaaye ko leeral bokk na ca mu ne yàlla ne ko man maa la yónni nga nekk yërmaane ci mboolem mbindeef mu ne nag képp ku xam ne nekk nga yërmande ngir ñëpp jaaru na nga nekk ki nga xam ne yaa gën ñoo ñu ñëpp ndaxte li mbindeef yi bëri bari yow rek yaa ci nekk yërmande pour mbindeef yëpp ngëneel ko yow rek yaa ko làmboo mu ne kon loolu mën naa jur itam waa jooju nekk koo xam ne mooy gën ci mbindeef yi fa xuraas yi loolu la wax jooju jeex na kon dafa mel ni preuve ak lay bi nga xam ne yi nga xam ne mu ngi ko doon di commencé na cee dugal yenn borom xam boo seetlu li paase yëpp li ci ëpp ay aaya la doon indi ak wax yoo xam ne dafay dafay dellu ci xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gis nga commencé na dugg na ci waxi borom xam-xam ñoom itam ñi nga xam ne ñoom bokk ak moom bokk ak taxawaay ci mbir mi bokk na ci Faxruddin Razi su ko defee mbokk mi lii mooy li nga xam ne mooy suñu darsu ci seen seen bii nga xam ne mooy TV bi nga xam ne mooy bibliothèque de la fayda kin àndoon ceeg seen mbokku Hassan Soufi wa salli llahumma wa sallim ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi al abrar فيحرم له أن يدر دين والي بكل حال سلام Amen.